ay jafe-jafe yu méttee métti yi la ñu jànkoonteel ñoom ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku jamono yi couvre-feu bi daanaka ñëpp ci ñoom xiif gu taratar la ñuy fanaanoo ndaxte gisuñu fu nu mën a jële lu ñu lekk laata couvre-feu bi di am ñi ëpp ci ñoom ñu ngi doon dajaloo ci wetu restaurant yi ak wetu dibiteri yi ku dugg xewlu ba génn la des nga jébbal leen ko mu mel ni kon loolu sax amatuñu ko dundin gu métte métti mu mel ni sax ñoom askan wi daf leen fa fàtte lu guddi gi sori sori ñu ngi wër dox ci mbedd mi di xool lu nu mën a dugal seen gémmiñ Serigne May Dieng bokk ci ndawu dëkk bi xalaat leen kon dafay jël lenn ci li nga xam ni kon am na ko mu jënd ko ay jumtukaay ay lekk jébbal leen. waaw action bi de nu ma ko jàngatee action de de de de solidarité la rek ak li nga xamante ni moom mooy social donc xamante ni. nakam sunu liñ jagleele lolu aussi ñun yalla may ñu xel ñuy xalat donc ñu bolé leen ci liggéey bi donc si la loolu yalla xel ñu am as lo xamni wax kané luñ ci jublu moy kané mën nañ am kenn ci ñom sunu borom def mu ñaan fekk jóge fi lolu la aussi ñu ci gëna a lolu ci la bokk. waaw waaw waaw parce que ñom chaque fois yenn heure yi fofu lañ daan lekkee ci restaurant yi ci fast food yi ci dibiterie heure yoy fofu nga leen fekkat ñu tok teud kon instant boobu noonu boo leen jox rek macha allah dañuy yeewu lekk ko ba nga xamante ni mën nañ ci ñaanal àdduna bi Sénégal gépp feebar bi jóge fi ci jàmm ak salaam. non non idée bi donc man ak ay samay xarit rek ñoo si doon waxtaan donc créé benn comité fii à Mbacké Mouride donc comité boobu ñu ngi ko taxawale woon préfecture mais bi ñu ko taxawalee déjà ñun bi ñu ñëwee suñu koñ ñu waxtaan ak gars yi ba si yàgg laan leen il faut que ñu def acte boobu daal. donc déjà de euh, man am naa possibilité génn en collaboration avec le commissaire ak le préfet bi ma leen proposé affaire bi ñoom aussi affaire bi kii leen trop ñu ne nañ ci liggéey daal ci waaw daal ci ànd ak ñun ñu leen ci remercier de passage parce que bu leen neexoon mënoon nañ cee opposé wu mais aussi nit ñi ay doomu aadama lañ si bi ñu jàppalee si loolu si lañ mën a am possibilité pour génn pour partager ak askan bi ñi nga xamante ni suñu borom daf leen kii seen xel matul daal ñu partager ak ñoom idée bi ci ci mbedd mi. waaw mooy moom yàlla xam nga waaw mooy moom li may wax rek chaque fois rek suñu borom moo ñor ñëpp ñoom ku leen waxoon da nga tëddoo benn heure bi kenn fekk la jox la lekk doo ko gëm rawatina ñi dañuy xëy di yeewu nekk ak seen xel di xalaat di dox di mën a lijjanti di lijjantiku kon ñooñu war bu lijjanti ko war nañoo lijjanti ñeneen ñi donc foofu rek lañ ko tegaan ah, lépp dañ ko tegaat ci ci sunu boroom rek que ne moom moo mën moo xam aussi ci ñu koy ñaan rek feebar bi jóge fi ci ci ci barke borom Touba. comme ni ñu ko waxee yaa ko gisantool sa bopp am na ñoo xam ne boo leen ko waxee duñ ko gëm donc mais nit ñi xiif nañ ñu ciy lancé appel le président son excellence donc que ne xeex bi moom ñun ñëpp ñoo ciy jàppandoo du moom rek moo ko moom aussi joxe na yoon bi kon ni ci des mooy que ne bu kenn toog naan dañuy xaar état wala dañuy xaar ma sàmba wala ma dem ku nekk li nga am as tout tout nu mu toll rek partagé ko parce que suñu borom mooy joxe mooy xañe donc lu la jox rek boo ko partagé leneen mën naa ñëw bu ko bi mooy li nga xamante ni dañ koy dégg nit ñi di ko wax di sonal naan waaw dund gi ak ceeb beeg yooyu man sama xalaat leen la ci moo que ne ñu fexe ba saaku ceeb bu dee jar dix mille francs ñu jaay ko à deux mille francs wala deux mille cinq cent ci jënd lu weesu cinq sac lu wax cinq sac yi mooy ko ne koo xam ne am nga doole nga mën a jënd cinq pour dimbali ñeneen léegi cinq yooyu noonu bu fekkee da nga koy jël aussi tam tam mënoo jékki-jékki rek dem ko da ngay am autorisation wuti autorisation ci préfet bi mu jox leen ko nga xam ne yow da am droit dem jënd ñetti saako ceeb juróomi saako ceeb pour mën ko partager ak ñeneen bu ñu ko defee xeex bi foofu la gën a yombee kenn day dëkk ci ab koñ dina mën a jëndal plus de dix personnes pour ñu lekk yaakaar naa ne loolu moom mooy gën a mais xaalis moom di ko séddale ñi ci war a jot duñ ci jot duñ ci war a jot duñ ci sama xalaat jafe-jafe yàgg lool ci askan wi ku wur fa ak état d'urgence ànd ak feebar bii di coronavirus ñëw gën ko taral nguurug Sénégal nar jël gën ngaa néew juróom fukki milliards ci ay CFA ngir jàppale néew gi doole néew gi doole googee nu mën cee gis ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku te daanaka mu leer ne mën na am benn koppar du tàbbi seeni gafa